Modou Mamoun Mbacke Serigne Modou Mamoun Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1950 ci dëkk bii nag di Ndakaaru muy doomu soxna Salimata Sall ak Serigne Ibrahima Mbacke Ndar bi mu feeñee jamono nag ci atum 1950 nag ci dëkk bii nag di Ndakaaru mi ngi dëppoo woon nag bisub ajjuma fukki fan ak juróom benn nag ci weeru décembre ci at moomu nag di 1950 waajuram nag Serigne Ibrahima Mbacke Ndar mi ngi ko fayee nag magam Serigne Modou Mamoun Mbacke mi nekkoon nag xalifa maam Cheikh Anta Mbacke moom Serigne Modou Mamoun Mbacke nag am na ñu mbokk nag soxna salimata sàll ak sëriñ ibrahima mbàkke ndar ñu mën cee ràññee nag sëriñ baabakar mbàkke nag mu kàbbaroo ibnu soxna salimata sàll ibnu sëriñ ibrahima mbàkke ndar sëriñ saaliwu mbàkke ibnu soxna salimata sàll ibnu sëriñ ibrahima mbàkke ndar soxna bintu mbàkke bintu soxna salimata sàll bintu sëriñ ibrahima mbàkke ndar soxna nabu mbàkke bintu soxna salimata sàll bintu sëriñ ibrahima mbàkke ndar soxna ami mbàkke bintu soxna salimata sàll bintu sëriñ ibrahima mbàkke ndar sëriñ mamor mbàkke ibnu soxna salimata sàll ibnu sëriñ ibrahima Ibrahima Mbacke Ndar ak moom nag sëriñ Moodu Maamun Mbacke ibnu soxna Salimata Sall ibnu sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar juróom benn ak moom nag muy juróom ñaar nag la bokkal nag soxna mata Sall ak sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar ngir xamale yéen njaboot gii mu bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan doomu ndeyam ji nag di soxna Bintu Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Moustapha Ndiaye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moustapha Ndiaye nag amuñu nag ak njaboota bi soxna Bintu nag jógee nag ci loxoy sëriñ Moustapha Ndiaye lañ ko jébbal nag sëriñ ànduñu nag ak njaboot doomu ndayam jii nag di soxna Nabu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Ibrahima Ndiaye nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibrahima Ndiaye nag am nañ benn bant muy ko ñuy wax nag sëriñ Mamadou Ndiaye soxna Nabu Mbàkke nag bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Ibrahima Ndiaye lañ ko jébbal nag sëriñ Cheikh Say Mbàkke nag moom sëriñ Touba Cheikh Soin bu Mbàkke mook sëriñ Cheikh Say Mbàkke nag benn bant lañ am muy sëriñ Maam Thierno Mbàkke doomu ndayam ji nag di soxna Ami Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Abdoul Aziz Mbàkke moom sëriñ Moustapha Mbàkke ceytu nag lañ ko jébbal mook sëriñ Abdoul Aziz Mbàkke nag Moustapha Ceytu nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Muumi Mbàkke soxna Aram Mbàkke soxna Mareem Mbàkke soxna Awa Mbàkke soxna Fatima Mbàkke sëriñ Moustapha Ceytu Mbàkke ak Cheikh Abdou Mbàkke njaboot gi ñu leen tuddal nag ñooy jarbaati nag sëriñ Moodu Maamun Mbàkke mu feeñ jamono nag ci atum 1950 waajuram nag tudde ko nag magam nag sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ba mu matee dal alxuraanul karim ndar nag la ko waajuram yóbbu ci daare sëriñ Moxsin nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko foofu itam la tàmbalee xam-xam ginnaaw bu mu jàngee alxuraanul karim nag ak xam-xam nag ba noppi la ko waajuram itam nag yóbbu ndakaaru mu dalee fa nag école primaire nag mu tàmbalee jàng nag li ñu tuddee nag école français primaire am mi ngi ko defee nag ndakaaru foofu itam nag la jànge ba war a dem lycée ñu yóbbuwaat ko nag ndar ci lycée nag Charles dégool Gaulle foofu itam nag la amee itam nag bagam ñu doog ko faa jëlee nag yóbbu ko France ci université nag de Bordeaux université nag bu Bordeaux nag la amee nag diplôme am ci wàllu économie mu nekk nag ab économiste ñibbisiwaat nag ci biir réewam ñëw nag ñu affecté ko ci tiers nag du plan boobu nag jibo ko nag moo fa nekkoon nag ministre foofu itam nag fa la liggéeyee ay at nag yu takkoo takkoo takku ginnaaw bi nag la fi bàyyi koo dem nag Nations Unies ci seen branche bii nag ñu tuddee nag PNUD muy programme nag des Nations Unies nag pour le développement mu toogal nag ci biir réew mi ak lenn itam nag ci réew yu Afrique yi moo tax itam nag réew yu takkoo takkoo nag ci àdduna bi itam nag teg na fa tànk ci loolu nag la ndakaaru nag ak foofu lu takkoo takkoo takku itam nag liggéeyal na ko maamam nag maam Cheikh Anta Mbàkke màggal gii ñuy defal maamam nag di soxna Anta Njaay ci dëkk boobu mu tëdd nag di déqale moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag moo ko taxawal barabu maamam bii nag di sëriñ Mbàkke Anta nekki nag ci Njaañ moo ko defar itam jumaa jee nekk itam nag ci gaawaan ginnaaw nag bu ko sëriñ Saam Mbàkke nag moom maam Cheikh Anta Mbàkke nag tàmbalee sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag moo ko eggale kër maam Cheikh gi nekk itam nag gaawaan ginnaaw bu ko maam Cheikh Anta Mbàkke nag dëkkee nag biñ njëkk a yeesal ginnaaw sëñ ko yeesal ba kër ga itam nag yi nga xam ne nii nag am na fa kër bi mu nekkee ndakaaru nag la ko xalifab sëriñ Touba Seexul Xadim bii ñu doon wooye nag sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke dël ndakaaru ne ko itam nag mu nekkal sëriñ Touba nag kër Masaar kër gépp am kër Masaar itam nag tabax na fa daara def ko nag kër murid yi amoon na kër itam nag ci Dalifoor am na kër itam nag ca am na kër itam nag ci ñaari gaawaan yi am na kër itam nag ci Touba Madiyaana kër yooyu yépp nag ñu leen tuddal taxawal na fa daara di yar nag di jàngale nag ak nag di liggéey sëtum maam Cheikh Anta Mbàkke nag bi mu doon bi mu matee jël soxna nag lañ ko booleeg nag soxna Sooda Wàdd mook soxna Sooda wadd nag benn bant lañ am muy soxna Maymunatu Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna yongu kan mook soxna yongu kan nag am nañ nag ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ Siidi Mbàkke di kim fayee magam nag sëriñ Siidi Mbàkke soxna Assu Mbàkke sëriñ Ibrahima Mbàkke di kim fayee nag waajuram nag sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Daba Mbàkke bu sëriñ Mustapha Ceytu Mbàkke Mbàkke mook soxna Daba Mbàkke itam nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag sëriñ Cheikh Abdou Mbàkke sëriñ Moustapha Mbàkke sëriñ Maam Xaadim Mbàkke yoraatoo na nag soxna suñu wax soxna Muslim Mbàkke moom sëriñ Moodu Moustapha Mbàkke Faliilu mook soxna Muslim Mbàkke nag benn bant lañ am muy soxna Faati Mbàkke yoraatoon na itam nag soxna suñu wax nag soxna Dégéen Faal mook soxna Dégéen Faal itam nag benn bant lañ am muy sëriñ Mbàkke Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñu wax nag soxna Xadi Faal Njaay mook soxna Xadi Faal Njaay nag amuñu nag ak njaboot yoraatoon na nag soxna suñu wax nag soxna Màgget Kan mook soxna Màgget Kan nag am nañ nag ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Mareem Mbàkke ak sëriñ Mamor Mbàkke njaboot gi nag ñooy njabootuk nag sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ngir xamale leen nag njabootuk sëriñ Moodu Maamun Mbàkke gi nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna May Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Jiili Mbàkke njurul nag lañ ko jébbal mook sëriñ Jiili Mbàkke njurul nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Fàllu Mbàkke ak sëriñ Muhammad Mbàkke doom ji nag di soxna Assu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Paap Seen nag lañ ko jébbal mook sëriñ Paap Seen nag amaguñ nag ak fii yal na leen suñ borom taxawu nag te sàmm leen nag te aar leen njaboot yooyu ñu leen tuddal nag ñooy lenn tim nag ci sëti sëriñ bi mu am nag ay mag ñoo xam ne nii nag ay taalibeem nag nag lañ muy taalibeem nit tim nag yu magi tim nag ñu mën cee ràññal sëriñ Astako Kan ci dëkk bii nag di gaawaan sëriñ Jiili Jóob nag ci Kër Masaar sëriñ Moodu Jenn sëriñ Moustapha Njaay nag ca Kër Masaar sëriñ Omar Saale ca Kër Masaar sëriñ Isaa Wadd Kër Masaar sëriñ Ibra Jóob itim nag ci Touba sëriñ Baara ci Medina nag Ndakaaru Serigne Baye Diagne ci Kër Massar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen i taalibe nag yu mag nag ci kër gi mu bokk nag ci sëti Serigne Touba nag yi nga xam ne nii yoonu murit itam nag naw na leen jàng nañ alxuraanul karim nag jàng xam-xam jàng itam nag nasaraan ba am ci ay diplôme itam nag ba liggéey ci liggéeyal itam nag seenum réew ba jël nag retraite te diirum nag li muy liggéeyal réewam nag ci wàllu administration cër bi nga xam ne nii itam nag moom la am itam nag ci ëttu maamam cër boobu itam nag dara manqué wu ca loolu itam nag sàmm na ko waajuróom nag na nawoon ko nag nekkoon itam nag ab xaritam ba bi mu amee kër nag kër Masaar Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag di ko xamal ne kër Masaar googu nag toog fa nag toogal fa nag Serigne Touba sàmm na ko itam nag wéyal ko ci dëkkub kër Masaar boobu ba wutal na itam nag kër Masaar itam nag ak maggal muy màggal nag Serigne Touba ku jaxasoo woon nag ñu takkoo takkoo takk la nag ci yoonu murid wi bi muy jàng nag waajuram nag Serigne Ibrahima Mbacke Ndar yóbbu woon na ko nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag ngir mu ñaanal ko bi mu eggee nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñaar téeméeri këyit Fadal Mbacke nag joxoon ko wax ne nag loo yóotu nag da nga ca jot Serigne Modou Mamoun Mbacke bépp concours nag bu mu def bokk na itim nag ci ña ca jàll tax na itim nag mu amoon nag ak relation nag bu yaatoo yaatoo yaatu digganteem nag ak Serigne Modou Mamoun Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñoom ñaar itim nag kenn ku ne nag daa nga seeti nag sa moroom relation bu yaatoo yaatu itim nag la amoon ak Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke bi muy dem nag Nations Unies ñëwoon na nag seet si nag Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke di ko xamal a moo ma fay yóbbu sëriñ tubaa cheikh abdou xaadir mbàkke nag di ko xamal ne bu doon kenn itim nag yow nag la ñuy jël la mbooloo ma doon bari bari nag ci candidature yi nga xam ne nii nag déposé woon nañ nag moom itim nag bokk na nag ci ñi nga xam ne nii nag jàll nañ relation bu yaatoo yaato yaatu nag amoon na ko ak doomu cheikhul xaddim boobu mook sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke itim noonu itim nag lañ jaxasoo woon sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke bi sëriñ moodu maamun mbàkke nag nekkee kër masaar sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke itim nag moo ko jox ndigal nag na fa toogal cheikhul Dakar itim nag sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag def na fa nag liggéey bu am solo ngir jëmmi sëriñ Touba ndigalul sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbàkke ku jaxasoo woon nag soxna Muuminatu Mbàkke nag la bintu Cheikhul Xadiima ñoom ñaar nag amoon nañ nag ak jaxasoo nag gu yaatoo yaatu noonu itim nag ni la ko amee woon soxna Maymunatu mbakke nag bintu Cheikhul Xadiim di borom laylatul xadar ko amoon ak jaxasoo la nag ak sëriñ Cheikh Say Mbàkke moom sëriñ tuuba Cheikh Soin bu Mbàkke jaxasoo gu yaatu itim nag la am sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Touba Cheikh jaxasoo nag ak nag ay waajuróom di ay rakki waajuróom ku mel ne sëriñ Sam Mbàkke nag moom maam Cheikh Anta Mbàkke bi mu nekkee ne xalifa maam Cheikh Anta Mbàkke lu baree baree baree bari nag ci màggal gi ci loxoom itam nag la ko tegoon kóolite nag gum am nag ci doomam ji bi sëriñ Moustapha Ceytu mbakke ñëwee itam loolu itam nag la wéyal ci doomam jii nag di sëriñ moo Moodu Maamun Mbàkke foboon na doomam itam nag jébbal ko ko sëriñ Moodu Maamun Mbàkke itam nag dëkkoo ko bi sëriñ Amidun ñëwee nag moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke itam ko plateau yi tim nag lañ amoon sëriñ As Gédé Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ñoom ñaar moom seenu jaxasoo nag dafa yéeme woon ay xarit dëgg nag lañ woon kenn ku ne nag daa nga seeti itim nag sa moroom ku jaxasoo woo nag nag sëriñ Amdi Mbay Mbàkke la moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ñoom ñaar nag daa nañ demlante ku jaxasoo woo nag sëriñ Aboo Mbàkke la moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ay xaritim nag lañ woon noonu itim nag ni la jaxasoo woo nag maam Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Moodu Roqaya Mbàkke jaxasoo gu yaatoo yaatu nag guñ amoon fu baree bare itim nag ñaari jëmm yi njaboot gi mu bokkal nag genn waajur wu góor nag muy sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar ñoom it nag ñoom ñëpp itam nag la joxoon cër ña fa mag nag mu xam ne itam nag ñoo ko mag tudde na taaw sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar doom muy sëriñ Siidi Muxtaar Mbacke di ki toog nag toogaa yëpp sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar nag jamono jii rakkam itam nag sëriñ Saaliwu Mbacke moom sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar tudde na ko doom sëriñ Moodu Maamun Mbacke moom sëriñ Saaliwu Mbacke nag mi ngi fii te magam itam nag sëriñ Moodu Maamun Mbacke moom sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar itam nag la ko tudde ni la jaxasoog nag sëriñ Muntaxa Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacke bi muy nekk nag Nations Unies mook Serigne Mountakha Mbacke nag daanañ demlante relation boobu tim nag wéyal nañ ko ba ni mu génnee àdduna daana def nag bu magalug Daaru Salaam gi nag ñëwee mu togg nag lu tolloog nag téeméeri ndab yit ko Serigne Mountakha Mbacke nag addiya poroxaan itim nag bu desee lu mat nag ñetti fan teraanga yi toll noonu itim nag lay defaat jébbalaat ko nag Serigne Mountakha Mbacke nag addiya ginnaaw nag bu mu fi bàyyi ko doomam ji nag di Serigne Sidi Mbacke loolu nag ma ngi koy wéyal ci yooyu nga xam ne nii nag waajuram itim nag nekkoon na ko ci digganteem ak Serigne Muntaxa Mbàkke relation bu yaatoo yaatu daal ci diggante sëriñ ak taalibe nag la ñu amoon ñoom ñaari jëmm yii mu nekk nag ku tabe nekkin nag ku yiw nekkit nag ku maandu nekkit nag ku jàng nag administration itam nag fépp itam nag fu fi jaar liggéeyal na am réewam loolu moo waral itam nag bi mu nekkee nag ministère nag du plan ginnaaw ministère nag du plan la wéyal nag ab liggéeyam ci Nations Unies ci branche bii nag ñu tuddee nag PNUD e muy programme itam nag kër maama ma nga ca mi ngi génn àdduna nag ci accident nag ci autoroute bi mu def bi nag ci diggante ndakaaru nag ak gaawaan jumaay gaawaan jooju nag bi ko waajuram nag sëriñ Sam Mbàkke moom maam Cheikh Anta Mbàkke nag tàmbalee ko nag ne da koy eggale bi mu ko eggalee nag ba mu des nag ab finition mu jàppoon koo inauguré nag ci mois de mars bi wàccaay boobu nag mu doon amal nag ci diggante gaawaan nag ak ndakaaru ci bi mu jógee gaawaan nag ba dem ndakaaru nag bay ñibbisiwaat nag gaawaan ci la ko sog boobu nag dikkal mu génn ci nag nag àdduna ci bisub dibéer fukki fan ak ñeent nag ci rakk ji gàmmu ci atum 1441 nag ci gàddaay gi dibéer fukki fan ak ñeent nag ci weer wi nag di rakk ji gàmmu ci atum 1441 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy dimanche 9 février nag ci atum 2020 dimanche 9 février nag 2020 ñu yëgal ko nag xalifa kër baayam di sëriñ Sidi Mbàkke mu yëgal ko itam nag sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des Mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke itam nag moo sàkku itam nag ci rakkam sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Seex Abdu Xaadir Mbàkke ngir mu ñëw nag jullee nag turandoo sëriñ Modou Mamoun Mbacke wi biñ ko jullee ba pare nag lañ ko denc ci wetu waajuram wa nag sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar ci armeeri Daaru Salaam yi soo delloo nag ci way yii ko doomam way nag di sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Modou Mamoun Mbacke sëriñ Sidi nag mi ñuy xamal waajuram woow nag di sëriñ Modou Mamoun Mbacke 1950 nag bi mu feeñ jamono ñaari waajur yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo ko meññi seeni jikko nag ni ko askan wi nag war a royee muy soxna Salimata Sall ak sëriñ Ibrahima ni mu selle jikkoy sëriñ Modou Mamoun nekkee baax ak yaatoog tabe nag gu mu nekke woon lislaam nag gu nekkoon itim nag ci moom njariñ itim nag lu nekkoon itim nag ci moom bëgg ay mbokkam nag gu nekkoon itim nag ci moom taxawaayu doomu soxna itim nag bu mu doon dund ay jikko nag yu mu royee nag ci ay waajuram nag ba ci ay maamam nu ko askan wi nag war a xamee moom doomu sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar bi biñ ko ñàkkee nag ñoom askan wi nag ni ñu ñàkkee nag seen royukaay bëgg bëggum leen bëggoon nag ñoom itam nag ñu bëggoon ko lu yaatoo yaatu yaatu daal la ñu doomam ji nag di sëriñ Sidi Mbàkke nag moom sëriñ du Maamun Mbàkke moom sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar nag di ñu xamal ci way yi mu def nag ci waajuróom di turandoo sëriñ Moodu Maamun Mbàkke wi nag ñu teewlu ko bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim bismillahi maa ngi leen di jaale yoonu murid wi siggi leen di gaale ka daa defar njaboot gi ak di boole moo ñibbi tey moo tax ma jóg di joobe ci tiis ak xel mu nax laa doore di marsiyaal ka am ko lool jaloore danaa la wax askan wa ak fam doore soog laa xamal jikkoog jëf ak manoore àddina mi kër la gu bon nax nañu tey yóbbu suñu sëriñ di bàyyi soxna may fu ñuy jëlee ti baay bu baax bu mel ni moom xanaa ñu jàpp diine def ko mu di moom te sax ci njub di ñaan ci buur bi yàlla xéewal yu doy te mucc faw ci yilla muhammadul maamun laa leen di xamal soo ko xamul déglu ma kon ma wax nga xam ku ma xamal war ngaa xamee ci lii ma xam ni Cheikh Modou Mamoun Mbacke mii de maa ko askan wu baax te sell lool ci néegu ndey la askanoo am satu njaay mat na di roy Adja jigéen ju baax ji mat di roy mooy waajuram jigéeni tey na ngeen ko roy askan wi tax ñu naa ko bàll ak maaram laalay xamal nga xam ni moo di yaaram maaram mi jur mam balla ay sa Mbacke mam balla jur mam moor mi def ku tekki mam moora jur cheikh saydiyal muxtaaru mataaru lool ba mel ni waa gànnaaru cheikh ibra mbàkkem saydiyal muxtaaru mooy bàyyi cheikh maamuna yow bul waaru samedi la feeñ ci aw rabial awal ca ama assasin la mat na siiwal baayam bu baax ba jox ko tur wu sell muhammadul maamuna ndaw lu yell jàngal ko yar ko def ci moom lu yéeme ci wàllu xam ak ràññe lool ci diine gëstu na it xam-xam yu yaa ci nasaraan ba am ca lool jommal na mboolem kerkeraan mu daldi gimmi teela la jublu baayam def ko sëriñ di gëstu ay nijaayam baay baa ko yar te moo ko yor bam kaamil ba xëy ko jox ndigal mu def ab noobal noobal ba jur noobal mu jur ab noobal cheikh du maamun mbàkke yaa ma jommal yaa baaxi baay yaa baaxi maam yaay garmi sa jikko jee yokk karaw ci xar mi jikkoom yu baax yi mat di roy laay siiwal yërmande jaag yaatu xolam te néewal dëggoom ga ak dëggal ga ak fu laam ja teew ko woon di wax dëgg ak fu ja dëggoom ga ak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 moo nag jumaay nag gaawaan ji bi mu fi bàyyikoo nag doomam nag sëriñ Sidi Mbàkke moo wéelitam nag bis bi nga xam ne nii ci la waajuram itam nag amoon yéene nag inigré nag jumaay nag gaawaan ji moom sëriñ Sidi Mbàkke itam nag mu wéyal nag yéene waajuram boobu nag wéyal itam nag bis boobu ñu jàppoon itam muy le 13 mars nag 2020 daal di cay inigré nag jumaay gaawaan jooju nga xam ne nii nag moo taxoon nag waajuram nag def soog bi 13 mars 2020 boobu itam nag la ko inigré muy bi mu génnee àdduna nag ba am weer nag ak ñeenti fan ci lañ eggale nag mébét boobu mu amoon woon nag ba tax nag mu génn àdduna sëriñ Modou Mamoun Mbacke nag moom sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tuddee ak màggal bi mu féetee nag ndakaaru na toog nag kër Masaar googu nag mu am kër toogal fa nag sëriñ Touba Cheikhul Xadima loolu itam nag wéyal na ko nag ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke kër Masaar itam nag wutaloon na leen ak màggal tudde ko nag màggal nag sëriñ Touba màggal googu itam nag mi ngi ko doon amal ci samedi bi njëkk nag ci mois de juillet màggal bi mu fi bàyyikoo nag la sëriñ Sidi Mbàkke mii ko wuutu nag ne bis boobu nga xam ne nii nag waajuram nag moo ko taxawaloon nag ca Ndakaaru nag ca Kër Masaar di samedi bi njëkk nag ci mois de juillet bis boobu itam nag da koy wéel waaye nag di ko ci fàttaliku waalee kon lii mooy màggalu nag sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag moom si Ibrahima Mbàkke Ndar ñuy ñaan ca turandoo sëriñ Moodu Maamun Mbàkke wa que sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar faye woon magam sëriñ Moodu Maamun yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam na ko suñ boroom saafara الرحيم آمين